ñu tàmbalee mooy li nga xamante ni moom moo gën a viral ci semaine bi ndax euh, PDG Doro Gueye euh, moom nag euh, semaine bi yëpp mën naa ni famille wam fees nañ dell ci toile bi bu ñu jógee ci loolu dinañ ñëw tamit ci faatu Lawbe problème am ak xale yi ak ku ci mel ni Sokono stress waaye tamit mhm. ñu ñëw rek si li nga xamante ni moom mooy dossier Doro Gueye ay dara ak Clara ndax euh, dimanche bi paase dañoo gis kile di euh, dooro di célébrer remariage am ak kii di Clara ginnaaw bi ñu dugalee photo yi nag euh, ay géwélam wër ko ku ci mel ni Mor Thiam ñee ñoom ku ci mel ni Sali Babel sax si seen video ñoom ñaar mu ngi koy xamal naan ko yow lañu takk yow lañu affiché waaw keneen ku ñu keneen ku mënti doon it na affiché ku ñu ku ñu takk na dëggal boppam wane ni yow jabar nga yow lañu takkaat yow lañu takkoon yow lañu takkaat ginnaaw vidéo yooyu bi mu génnee nag euh, euh, ci guddi gi ñu gis Racky tamit publier ay photo mariage moom ak Doro Gueye photo yaa ngi noonu euh, shooting yi la dugal dugal tamit mariage am bi bi jour célébration mariage am bi ñu doon wax naan am na ak amul dugal dugal na tamit genre anytime la moom ak ñoom xëcha ñoom ñëpp nekk ci photo yi ginnaaw bi mu publier loolu nag affaire yi euh, créer polémique euh, gars yi ku ci nekk di si yéediyaa bi ku ne naan kan mooy aawa dans ce kan mooy aawa parce que Racky mu ngi wax ne moom jabar la euh, Clara tamit yëkkati na benn loxo di wane ni aawa la ndax bu ñu fàttalikoo ay mois ci ginnaaw dañ doon wax ne Doro Gueye dafa takk-takk suuf Cla Racky ñu gis ne que loolu ñoom weddi nañ ko Racky tamit génn na ni moom kenn takku ko takku suuf l'essentiel du wax turu waa ji waaye MJ lay wax madame madame Guèye wala yéenay xool lu leen neexee meilleur gâteau moom moo wax loolu ginnaaw loolu nag ñenn ñi nee nañ euh, Clara moo poussé ak ay géwélam ñoo poussé ask rek i génn dëggal boppam ne que euh, moom jabar la sénégalais nag ñenn ñi nee nañ Racky euh, dafa ñàkk fayda warutoon nangu ñu koy nëbb ba heure bii muy door a génn ñeneen ñi ne Clara dafa manqué lan moo tax mu retire photo infini bi mu def moom loxoom ak loxo dooro bi mu dugaloon sur Snap ginnaaw bi photo yi génne moom Clara infini boobu ci suuf da ko retiré daal di def alhamdulilah ci kaw loolu nag doon dégg ay rumeur di wax ne que peut-être Dora dafa signé monogamie ci euh, ci nit ñi lu ñu wax ñu ne est-ce que du piège bu Clara tendre dooro pour que mu am confirmation ni takk na Racky pour mun ko topp ci yoon ñenn ñi nee na ñoom loolu lañu xalaat ñeneen ñi ne peut-être du loolu euh, Racky moo gis boppam rek génne photo yi kaa bi daal noonu la demee am na yeneen nag yu ci biir xam naa ne si biir waxtaan bi bu ngeen ma laaj rek ma wax leen ko ndax def naa ci ay recherche yu am solo en tout cas man je suis un peu waaw waaw parce que euh... <laughs> déjà man yëguma woon sax ndax <laughs> ndax tas am naag sëy lii yëpp yéegu ma ko. kaa <laughs> lii yëpp yéegu ma ko xam nga lu tax yéegu ma ko. <laughs> Ah. Euh, je pense que lii warul nekk lu ñu teg ci penc mi ku nekk ci ngaaw téngal mu nekk information nit ñi nekk ci. Mm. parce que amul benn lu muy jëriñ nit ñi walla mu jëriñ ko réew mi. boo nekk ci réewu kaana. Mm-hmm. kii góor la am na droit takk ba ñeent parce que jullit la ñii ay jigéen lañ. Mm-hmm. ñaar moo mun a nekk nga bañ a wujjee nga bañ a dugg ci sëy mbaa ki ngay àndal nangul la ko moom it yem ca te bañ def leneen muy ñaar yooyu mais damaa jàpp ne lu bari coow yi di am yu bari ñi nga xam ne ñoom la ngësëm li indaale ñooy yokk coow li maanaam ñoruñu tàbbi ngësëm leen indaale mm-hmm. ñi ñor tàbbi xam nga ñan la mooy ñett ñiy seq ko ku góor keeg ñaar ñu jigéen ñi suñ leen bàyyi woon ñoom rek ñu la seen problème man jàpp naa ne coow du amee nii mais kenn ku ci nekk da nga ciy bëgg a wax kenn ku ci nekk kii day faral kii kii faral kii coow li bëri nee naa la man bi nga may wax li dama man damaa yéem dama toog di xool parce que xawma lu xew ci réew mi parce que yii cest à du loo xam ne nii dundu jàmbur viwu jàmbur lan la ma mën a jàngal ba tax ma koy topp mbaa ma ciy wax man de bu ma sañoon moo doon ñaan ku góor ki laay ñaan moom moom laay ne ko mu régler lii nii parce que moom mooy kilifa kilifa la. bu dee moom moo juum na moom laa lay moom mooy kilifa na ko régler même bu dee doo jëm na ko régler ku jëm mun tabaalu baara yow cam mhm. jigéen takk ko jabar. Mhm. jabar nawle la jëkkër sang la waaye jabar nawle la. Mhm. nit day juum ci jabaram. mais na am grandeur toog ak jabaram ne ko damaa juum. baal ma àq. kaay ma wax la leen jigéen ñi compliqué wuñ de. ku ci sa jëkkër jàkkaarloo yoon ne la damaa juum baal ma ak nga baal ko. Mm. compliqué wuñu mm. mais da ngay def lu ne weng sa jabar di la ko nga bañ koo baal di ko wan ne ko yow yaay kilifa gi tegoo ko fenn. Mm. kon moom mi góor man damaa jàpp ne moom moo munoon fay coow li. Mm-hmm. taaj ñaari soxnaam yépp ne leen nag il faut ñu jeexal lii une bonne fois pour toutes yéen ñaan ñëpp ay soxna ngeen xëy na man bu fekkee da ngeen jàpp ne damaa juum maa ngi leen di jéggalu mais damaa bëgg ngeen joxanteel ko dimbale ma man mii seen jëkkër parce que lii jaru ko ku nekk de xam suñu vie privée jaru ko waaye nag li nit ñi di wax naan lu mbedd mi takk mbedd mee koy tas loolu moo ci nekk parce que non parce que tey jii dafa xew <laughs> dafa xew kuy def dara yaa ngi dem ca internet ba siiwal koog yooyu noonu mais ah. mais bànneex mën nga ko siiwal d'accord mais bu demee ba commencé compliqué mais dund leen ko jarul siiwal quoi dundu leen ko sutura dafa baax dañoo fàtte sutura sutura dafa baax ci ñaari waaye dencante de parce que ñoom ñëpp dañuy am doom ëllëg ah. te yii day des ci internet bi ah. doom yi màgg tey jii mm. mun na am ak kenn ku nekk doom doom yooyu màgg gis seen yaay niñ doon defantee ñoom ñu commencé defante mm-hmm. c'est très dangereux mm-hmm. man de en tout cas Doro Euh, euh, sénégalais la saalum saalum la sama mbokk saalum saalum la mm. euh, je l'estime très bien mm. mais man bu ma sañoon tey ji noonu la koy régler coow lu jeex ñaari soxna it muy raq yi di kalaaraa tamit nañu nañu nañu nañu kii quoi nañu nañu jël lépp teg ko ci suuf mm-hmm. xam ne wujjee bokk wërsëg la rek mm-hmm. ñu joxante loxo ñoom ñaar ay jigéen lañu. Mm-hmm. ñu mayante doole may seen jëkkër doole Sénégal neex seen jëkkër mun a màgg gi mun nañ fi déggoo déggoo goo xam ne dina jaaxal nit ñi. Mhm. man de bu ma xaw ma leen parce que bu ma leen xamoon jaral na ma sol sama daal dem ci kenn ku ci nekk di waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne xam nañ leen te buñ koo dox hmm. nañ def loolu parce que lii du luy wéyal réew mi quoi ñenn ñi nag ñoom ñooy compliquer problème bi parce que da ngay gis kuy ñëw topp Clara yaakaar poosam doo ko doo ko conseiller loo xamante ne nii day dafatal digganteem ak peut-être bu dekkee wu jëm la mais au contraire yaa ngi xalaat sa poos ak lam la war a jox donc doo ko wax dëgg benn côté loolu nag moo moo rey ñu parce que képp moo tax boo amee alal pour nga ràññee ñi la bëgg ak ñi la bañ billahi dafay jafe dafay jafe mhm. lool lool mhm. man de bu dee ñoom ñi ngi may dégg muy Clara di rakki li ma leen di ñaan nañu delloo galan yi yaa ngi dégg mhm. nañu teg lépp wéer yaa ngi dégg te jéem seen jëkkër waxtaan ak ñoom ñu ànd juba billaahi loolu moo gën ci ñoom lii ñu nekkee nii parce que ëllëg bu ñu sóor tey tey tey ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la ah. nañu sóor ëllëg ay say tas na fi ñu nekk ay xarit nekk ay gaayin ah nit takk na fi jabar am fi ñaari jabar ñu nekk ay gaayin mm-hmm. nit takk na fi saa damaa takk ci suuf jabar ji yëg ko ñu waxtaan ba juboo ñu oo kooku siiwal yëf yi ñu àndaat nekk benn te loolu day may doole seen jëkkër war nañoo yërëm seen jëkkër ji nga xam ne bu yàggul dara la jógee ci ay jafe-jafe mm-hmm. ku jógee ci ay jafe-jafe waroon na tal leneen lu dul encore lii mm-hmm. kon moom mi góor na woo ay soxnaam soxna itam nañ nañu bës seen xol ñu seet yàlla nañu bës seen xol rek muñ man de loolu laa leen di ñaan aw ma nag leen lu ma leen di xas wala lu ma leen di waa parce que wax dëgg yàlla <laughs> ah, ah, xëy na mbiru jigéen la rek ak fiiraange mais nañu ànd ak dal waa ji waa ji aussi woo leen ñi nga xam ne dañoo jege waa ji carrément di ay kilifa nañ jóg dox lii fay mëpp du débat boo xam ne war na jëriñ leen wala nu ñuy waxtaanee seen vie privée la nañ leen bàyyi nañ ci génn man daal loolu xalaat laa ci am baara. rafet na rafet na lool. Mhm. waaye taaj aawo taaj ñaareel taaj TikTok. <laughs> mooy taaj nga aaw taaj ñaareel taaj Sénégal. dëgg la de moo tax du neex a lijjanti. dëgg la de. te wujje wujje bu tareete metti sëriñ Tuubaa di jóg waa ba jiiba wàlle bañe am sa clan mm-hmm. am say ñu yor seen i bongoog seen yëf sa clan rek góor ak jigéen loola xeex boobu muy indi góor gu tardé looloo la tardel da lay um mhm. dañ lay liggéey mhm. dañ lay sëf mhm. na ma gën a bëgg na jàkkaarlook man ku nuy wujjee dangay dagg ci digg bi te boo xasee ba dagg ci bi dootoo amati njariñ ku ne di xëcc c'est dangereux wujje dafa garaaw mais rakki dafa yéex a tontu wax na la yow dañ laa takk-takk suuf nga ni déedéet ba mu yàgg lool lool lool lool lool nga doog a génnee ay photo déedéet ban la ko waxee rek génneel photo parce que góor ñi ak jigéen ñi laa la wax wax naa ko fii l'autre jour dañuy dem ci kuy jaay tenue de mariage photo wu def essayage denc seen portable bés bu mariage amee bu amulee photo boobu daf leen di jariñ am na foo xam ne dañ fay dem wane ko am foo xam ne duñ ko wane am na foo xam ne sax wane danoo divorcé daal lay wan photo yi nga ne ah oui c'est vrai loolu day am bon bu fekkee ne yow fase nga sa aawo wala yaag sa aawo xuloo ngeen xuloo bu tàng donte yéen a bokk benn kër mais demalantewu leen fekkalantewu leen wala sax ndaw si gis boppam dem yoonam foofu la takk suuf di amee toujours mais ki nu takk takk suuf day dem ba xam ne moom bis bu aawo bi dellu see mu ñàkk parce que moom faj mer la ko jëkkër ji doon doyee passe temps rey temps daa xuloo kilifa la mun a tëdd moom dong te dafa siiw warul mënul wër ci hôtel yeeg auberge yeeg di taxaw ci biir 4 x yi nekk ci ay ran garab oto bu tente xam na ni yooyu yëpp mënatul la nekk day takk takk suuf parce que bu ko defee takk bu siiw ñu ne ko da ngay faj mer yow kay yee tax sa jabar tas yow kay lii tax sa jabar fay yow kii nga doon doxaan li nga doon def léegi nag bu ko takkee takk suuf def ko en stand bu ko kee yégee du ci boole wax moom day def tout pour juboo donte gëmu ko de mais dana fexe fexe fexe moom euh, Kira dana fexe ba door takkaat ko publier waat ko tàngalaat ceeb bi ba mu tàng jër jër jër bu ko defee ñu ne ñaar lañu kii naan man maa maay aawo kii naan man maay ñaareel donte nag góor ñëpp la war tey Sénégal góor gu mu fi mën a doon ñi ma ko saña wax war na noo mën a takkaat seen jabar tasagun de fasewuñ leen mais nañ leen takkaat parce que ay fase naa la dafa gaaw ay boo gisee guro yéyal ay man dootuma la yooyu yëpp gaa yaa ngi koy def ba pare kon ne seen sëy donc takkaat moom wàññul dara mais nag bu dee da koy def ngir yàlla ak wan kële takku suuf bi maa fi nekk maa fi ma sa nekk yow juum nga ci bi ngay poñe sa jëkkër di ko xorñoñal ba mu takki jox na la cër ba dem takk takku suuf kon yow ki nu takk takku suuf yow na nga xam ne bouchon nga woon roue sa kur nga woon da nga doon faj merket waaye ku la gëm ci bis bi mu la takkee lañ ko war a publier àdduna bépp teg seen bët ba aaw ba dégg ko sax ci bis bi boo liggéey problème yow doo ko am bu dee nag dangaa ngaa ak aaw bi nag loolu beneen débat la nan nga lijjantee signature ba nan nga ko làqarte ba saña takk nag léegi officialiser ko bu fekkee lii lu du lu officiel aaw bi dana jóg pour porter ko plainte moom dooro ndax dafa signé woon bu dee signé na waaye ci biir loolu pour kee itam di xeex parce que xam ne juboo nañu te dana ko andil fitna mu wane na moom xëpp ci maanaam xëpp ci euh, taal bi euh, diwlit day wane moom ay photom te photo yooyu mën na ba ñu nekk sax lu officiel encore une fois de plus mën na nekk essayage ca dubaay wala ca Chine wala ci ci biir dëkk bi essayé essayé essayé mu jël albumum denc di xaar donc yooyu yëpp dañ koy war a sóoraale waaye boo ko defee ci mbedd mi taaj TikTok ak Sénégal gépp ñu fekkee lii lay indi bi tey wax nga ko seeni doom seeni nawle ak jigéen boo gisee ñu ciy wax bi tey Sénégal jànge ci senegale yi di ci jàng góor ñi di ci jàng jikko ak melo ak àdduna réew moo xam ne mi ci wujje bisu gàmmu bisu màggal caaxaan bisu caaxaan bisu jaamu yàlla rek la xaar pour caaxaan caaxaan jamono ji nit ñi dee ci gaal yi nit ñi lekk naan nu réew mi nar a tàkk kenn xamul fan la réew mi jëm yow yow yaa ngi tal yow say jabar d'accord sama aawo sama ñaareel takku suuf takku kaw ñuy photo yooyu d'accord Bara il faut que ñu changer d'accord Bara euh, Moustapha ah man de fi mu nii réew mi xam nga dëgg kay mu kay dafa kéemaane kay <laughs> Dora nag yàlla may na ko de vraiment. vraiment ñu ngi ko ah. yàlla may na ko de yàlla na gudd fan. amiin yaa jigéen ñi xëccoo ku ne naan Dora Dora ndeke góor nag manqué na surtout góor gu yor réew mi ndeke góor daal boo yorul doo góor ndeke boo yoree jigéen ñi fi ne nii man xaw ma Dora la ñuy xëccoo xaw ma poosu Dora la xëccoo. ah est-ce que mënul ni Dora xëccoo. est-ce que mënul yor jigéen looloo looloo question. waaw loolu tam jar na laaj ah Dora la ñuy xëccoo. waaw Dora lii door ci lii door ah door ci Dora moom la ñuy xëccoo wala Dora la ñuy xëccoo. wala ay door la. parce que waaw wala ay door la parce que ñun fii na réew mi loolu tam foog mu leer. xam nga dem xam nga tam loolu foog lu tax ma wax ko mooy. Mhm. yow coow loo xamante Euh, maanaam influenceurs yi ci TikTok bi sax dañoo jël coow li ku ne am foofar mel ne làmb ci mariage jàmbur mhm. léegi laa gis dugg TikTok gis koo xam ma nga jël yëf yi man euh, doo naan euh, aaw yow laa àndal waaw góor ñi nag làmb waaw góor ñi nag gis nga seen jukkoo dañuy wax fii di wax fee ne ci public bi gis nañ sax ñoo ku ci mel ni DJ Kheucha moom wane na féeteem de jël na jël na jël na rakk taf ci wetam waaw aada moo sax at euh, artu na ko ne ko na na génn ci coowu jigéen ñi kon rakki mooy kii def ak moom émission waaw mooy wane man newuma ci réew mi naa ah, rakki la kooku man man lijjanti léegi nag bu demee yow léegi nag bu demee ah, ah, maa ngi doog comprendre affaire yi affaire de gang la léegi nag mooy wane ni kon li xewoon ci suuf la mooy fësal ni kon sëy yu bari lii moo ne ci kaw parce que duñu bàyyi nit ñu sëy seen sëy yi dans tout mais waajuru waajuru ku ñi ñu jigéen ñi. mais ak waajuru ñu ku góor ki. ñu ñu xanaa ñu xool seen ah, doom wax ak ñoom bu fekkee sëy bi woon am na cousine am sax bu waajuram nag. ah bu fekkee tiktok ay waajuram li baara wax. dëgg am na cousine ah. am sax bu dugg ci benn live di leeral. waaw di wax ne rakk yi kenn takk ko takk suuf takk nañ ko. takk non man waxuma sax loolu de foofu waxuma foofu sax. maanaam man li tax may laaj ana waajur yi moo ñu oo leen yedd seeni doom ñu bàyyi coow seen rôle dans tout ça xam nga mbir mi ay takk nañ la suuf takkuñu la suuf l'essentiel takk nañu la ñëpp xam nañ ne takk nañ la mais ñu waxtaan ak ñoom ñu bàyyi coow bi lay man jàmm laa bëgg bi ñu société bi boo yoree barke li jiwul seen borom kër société bi coow li jiwul seen borom kër ah société bi boo yoree barke waaw kenn du la wax dëgg ah mi ngi noonu ah mais mais waajur yi sax xam nga tey ñooñu pa waajur ak sëriñ sëriñ foo xam ne kenn du wax dëgg xam nga bi day tool foofu waajur yi sax da leen ëpp doole. kenn du wax dëgg parce que TikTok bi dafa romb waajur yi sax. di dem mm-hmm, ak WhatsApp mm-hmm. be kaa yi ci réew mi am na loo xam ni dafa romb lépp. mais gis nga tey jamono dafa toll foo xamante ni mooy wane ni gis nga fii ne Sénégal yeneen réew yi ñu ngi naan réew nangam defar na bus nangam téléphone nangam mi ngi génn Chine nangam mi ngi boo mais bu réew boo yoroon sa avion di dem <laughs> dëkk boo dugg ñu naan ñii ñu ngi créé nañ 2016 at mi def nañ 16 créé nañ ay ban nangam mais Sénégal boo fa duggee. boo nee semaine bi luñ créé da nga naan cas ah. dóor dangay fekk maam bu fi tubaab ñëwoon di xool lu xew ci réew mi ay kaa nga fi fekk. Mm-hmm. te am nañ lu ëppal solo réew mi lu ko ëppal njariñ comme li bi tey wax dafa am loo xamante ni maam sénégalais yi maam population bi seen yoon waru cee nekk. parce que loo xamante ni vie privée la. wax dëgg yàlla maam réew mi bu demee ba jël vie privée di ko sàmm kenn ku ne di ci wax xalaatam kenn ku ne di ci parparloo yaa problème tey jii am na loo xamante ni réew mi gis nga buñ ko buñ ko buñ ko freiné wul détails yi ñuy jël ku ne jël sa vie privée ñu def ko cas di ko am na ñoo xam tey jii ni nit ki di di euh, tuxkat bi ni muy amee euh, bu fu fu bu añee pare foog mu tux mm-hmm. bu naanee boo lekkee pare foog mu tux gis nga réew mi dafa toll ñoo xamante ne cas drogue la ci ñoom mm-hmm. bu ñu xëyee fi mu ne nii foog ñu am kaa foog ñu toog ci kër gi dégg nga door a géej bi diw nangam mm-hmm. nangam reetaan kaf nangam loolu nag moom moo nar a gaare suñu réew mi waaye waaye nañu waxtaanee yaa xayta leneen lépp solo loolu am na ñeneen yoo am ëpp importance parce que Dora moom fi mu nii xas na ba takk gi am na parce que tey ji ndaw si boo gisee photo yi li cousin bi wax Euh, xaw ma cousinam li mu wax ni Dora kii jabar la kon ñëpp xam nañ ni kii jabar la kii jabar la nañ fexe boole bokk ndey bokk bàyyi te sëy sëy bi te xam ne Dora moom takk na kii takk na kii d'accord Moussa moo moo moo ci am solo alors di wax rek ñu ñuy seetaan ci Walf TV Walf TV day décroché kon ñoom mun nañ dem ci Walf net bi continuer li nga xam ne moom moo di émission bi ah xam ne jeexul mais Walf TV dafay nekkaat ci programme décroché 30 minutes yi def